mu dol mu toll ci un milliard cent quatre-vingt-huit mu des kon euh, quatorze milliards huit cent nanga millions biir quatorze yooyu nag am na tuuti lu ci mata leeral loola moo di dafa am ñaari milliards yoo xam ne président de la République Abdoulaye Wade moo ko joxoon Serigne Saliou addiya ci liggéey bi mu doon liggéeyal ci Touba joxe joxoo ndigal te fekk ñu wate bit si ba noppi ñaari milliards yooyu ci la président de la République fayewaat kon li nga xam ne agsi na ci loxol sëriñ bi mu dugg ci compte sëriñ Touba bi mi ngi toll ci douze milliards huit cent nanga million kon loolu mu leer ci bokk taalib yépp moom ci wàllu boppam nag dolli na ci compte sëriñ Touba yi ëpp un million moom seex ma ko ci bi mu fi toogee léegi ci biir loolu nag ginnaaw bu mu tàmbalee liggéey bi nga xam ne sëriñ Saliou dafee bàyyi woon naal bi naal bi sëriñ bi dugal na ci biir liggéey boobee entrepre entreprise bi nga xam ne moom la sëriñ Saliou joxoon liggéey bi muy Baol liggéey jëm ci ñetti fànn muy électrification bi ñu war a sensé ci jumaa ji nga xam ne depuis ba jumaa ji àggee ba tey mboolem fil gu ci nekkoon dañ ko war a dindi ak làmp yi ci biir jumaa ji ak yi wër jumaa ji ak yi wër mboolem kër doomu Sëriñ Tuubaa ba génn orma jumaa ji mu am itam ay giri yoo xam ne ci xalaatu sëriñ bi la ñu ngi ko commandé bitim réew giri ya déw bi mi ngi nekkoon huit cent nanga million la ca topp nag mooy marbre bi nga xam ne dañ ko war a def ci biir jumaa ji mu wër a wër nga xam ne mboolem lu doon suuf ci biir jumaa ji dañ koy dindi marbre ko ba mu nga xam ne ci mètre carré mi ngi nekk vingt cinq mille mètre carré jaral ñu lu gopp ndax li ñu suñ Tuubaa defal ci la wax ne kon nag na fexe ba li nga xam ne moo wër pénc mi di war mooy war mooy jumaa mu fexe ba méngoog ni dëkkub Serigne Touba war a mel ci biir lool nag ci la dugale moom ci xaalisu boppam ñi ngi ko jox entreprise bu ñuy wax EFAS euh, sëriñ bi dugal na ci xaalisu boppam loo xam ne man neuf cent millions loolu ci xaalisu boppam la nag loolu mooy jëm ci sànce yi nga xam ne sëriñ bi tàmbaleegul na ko loolu mooy it li xaalis bi génnaguñ ci xaalis bi juguñ ci compte suñu Tuubaa bi mooy li jëm ci bor construction li jëm ci def euh, mu jëm nag ci defar mboolem mbedd yu mag yi nga xam ne Serigne Saliou da ko waxoon ndax am na tuuti nag lu ñu fi war a leeral ndax dafay ñaari porosé procès bi nga xam ne Abdoulaye président de la république moo koy def muy grand travaux di Touba muy cent vingt milliards yi mu wax ne bëgg na ko dugal ci Touba ci diiru juróomi at bokkut ak nag liggéey bi nga xam ne sëriñ bii moo ko fas yéene def te ànd ko taalibe Sëriñ Touba yëpp ndax euh, lu jëm ci wàllu defaru dëkk bi nag ak euh, mbedd yi entrepreneur yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi incha allah bu ñu àggee ci màggal gi danañu ko xam ne leeral lépp na mu war a demee ak débit yaag ak bu ci na fa mu war a jaar incha allah waaye li nga xam ne nag nañu xam ne nag sëriñ Touba dañoo fàggu lépp kon nag yé yéene ju nit mën a am lu mu baax baax ci defar dëkk bi nañu ca fekk ndax li indi raay bi ci Touba taxawal fi jumaa ji bu ñu ko defee lépp lu Serigne bëgg ci dëkk bi danañ ko def. te dëkk bi nag nañoo xam ne Serigne Touba ñaanoon na fi boromam lépp lu mu fi bëgg boobu may ko ko ndax ku jàng mat la woon foo sëy ni xam ne sëriñ bi bayu dara kon nag ñoo xam ne dëkk bi fu mu àgg fu ne ñaanu Serigne Touba moo ko fa àggale gu firnde woo ci farlu taalibe yi kon nag la Serigne bi waxoon ci mbirum jumaa ji rek ne bu ko defoon malaayika yi dinañu wàcc ko loolu mooy mbirum dëkk bi itam te nag ñaanoon na borom mu may ko ay sët yu baax yoo xam ne day ñëw ngir continuer. mission yu baax mission ya seen kilifa yu baax doon def ba tax mu wax ne wahab lana zurriyatan tudimu al amal salih ya khadim ñaan tam suñu borom may ko sët yo xam dañuy dikki ngir yeesal diina yoni tabi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu wax ne zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyi mustafa tajtahidu te yoni tabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna allah yab'athu li hadhihi al ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha ginnaaw téeméeri at bu yoon nag suñu boroom dana wàcc benn mu jëddit mu dikki ngir yeesal yéene yooyu tamit sallallahu alayhi wasallam lépp nag Serigne Touba fàggoo na ko ci biiru njabootam kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soññ taalibe yépp ñu gën a farlu ci al amalu saalih te la ci jiitu jaamu suñu borom te na mu gën a rafete ndax Serigne Touba kat mas tomb yetti tomb wax ne li mat a def ak li matul a def ak li ëpp def mu ne li mat a def mooy jaamu yàlla ndax moo lay may àjjana di leen musal mu ne li ma la def nag mooy fo ndax du la may dara du la musal ci dara mu ne lépp def nag moom bu ko sa xel sa xalaat mooy def lu naqar yàlla nee na itam na ngeen farlu ci sàkk lu lew ndax jaamu yàlla kat balaa baax nit ki day jëfandikoo lu lew ndax Sëriñ Tuubaa kat wax na ne laa yanfahu al ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami inda saada nee na xam-xam ak jaamu yàlla lu jariñ nit ki nga xam ne day lekk lu aram nee na itam nu bàyyi xel bu baax ci alkalimatu maa laha wa ma alayha muy muy wax ci boppam li muy jariñ ak li muy lor ndax loo xam ne mooy dugal nit ci diine kon lu ko gën a rëy amut te mooy an nutqu bi ni waaye nit waaye itam lu ma ne yóbbu ni sawara ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne hal yakubu nnaasa fi nnaari ala manaxirihim illa xasaidu alsinatihim moo tax alquran di tëkkoo ñi nga xam ne bu dara xawee dañuy profité ci occasion ba di fajaare seen soxla ya seen soxla moo tam wax ne لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أغثوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا المنافقون it ñooñu sun borom di wax naan wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashurun ñooñu ñooy naafeq yi ñoo ñoo andi lañ ñëpp ndax ñoo tax bis ci taxaw allazina fi qulubihim maradun itam ñoom la alquran di wax naan fatara allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna naxsa an tusibana da'iratun fa asa allahu an yaatiya bil fathi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin ñooñu ñoo ñaaw njortu ci mbirum lislaam ak mbirum Sëriñ Tuubaa yaakaar nda am fu mu yem wal murjifuuna fil madina itam fil madinati mooy ñi alquran di wax naan inna liseen yuhibbuna an tashia al faahisa fi am amanu lahum azaabun aliimun fi dunya a aaxirati ñooñu ñooñu ñooy ñi nga xam ne seen yitte yëpp mooy di wër lu ñaaw ci nit ak di ko siiwal suñu borom tëkku na leen ndax du leen liggéey ëllëg nee itam nee itam mi ngi leen di digal ngeen di liggéey yàlla ci jaamam yi te mooy xidma ndax yoon wi kat loolooy baaxam na ngeen ci farlu te nekk benn te àndandoo te yeewu ci wax suñu borom ji wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa nee na mi ngi yëgal yëpp nag ne amatul jeneen yitte juddu sàmm ndenkaan lii suñu borom ak Serigne Touba ci loxom ni ko way juróom yu tedd doon sàmmi ba mu ak si loxom di digle la ñu doon digle di tere lañuy doon tere muy xam muy xamal muy xam leen nag ne lu way juróom yu doon bañ ci yoon bi ak dëkk bi mi ngi koy mu ngi koy yeesal di ko fetli te fas yéene lu mu laaj mu def ko ci biir loolu nag am na tuuti loo xam ne waxoon ne nañ ko leeral loolu mooy dëkk bi bi ko Serigne Touba di sanc daa am lu taxoon mu sanc ko ndax daa waxoon li tax mu sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi mu ne nag mu ngi yeesal ndigal loolee ñu xam ne dëkk bi bis ne tey tere na mboolem koo xam ne mboolem lu ci mbirum parti politique wala yëngu politique wala ndajem politique wala lu mu mën doon lu jëm ci mbirum politique bis ne tey sëriñ bi neen tere na ko tere mu dàq koo xam ne nee na képp koo xam ne bëggati ngaa def lenn lu jëm ci mbirum politique wala yëngu politique na nga dem ba ca département ba ci Mbàkke nga defe ko waaye dëkk bii nag li ko su boromam sance woon muy jàng muy jaamu yàlla ak jàngale nee na fasatu yéen mu génn ko fasatu yéen daal ñu def fi dara lu may lu jëm ci mbirum Sëriñ Tuubaa ak lu jëm ci mbirum lislaam nee na tere na ko te fas na bakkanam la teg ci tere kon nag na ko teel bi yëpp xam Sëriñ Tuubaa nag am na lu lu waxoon waxoon na ne xam ngeen ne xam ngeen nu may xamee ba xam li ma leen di diggal def ngeen ko wala defi leen ko ñu ne ko déedéet mbàkke mu ne waxtu ma sante nit lëf day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal la mu dëkk ak moom mu ne bu jëfewul ndigal la nag day dellu siwaat ci man di ma xamal ne dem naa waaye awma fu ma ne dellu siwaat gi mu dellu suñu man nag ci laay xamee ne eh, jëfewul ndigal la lii nag nañu xam ne ndigal Sëriñ Tuubaa la ndax sëriñ bi ko santaane baax na nag ñu xam ne eh, taxaw dëkk bi bali fi war am lépp am fi ba ñu fi dëkk mën a am jàmm mën a rafetal seen nekkin ci furuudu kifaaya yi la bokk ndax sunu borom nee na huwa anshaakum min al ardi wasta'marakum fiha dundal suuf nag weetu weesuwa def fa li nit ñi aajowoo ci ndox ak yoon ak i ja ak lu koy leer leeral loolu it la suñ borom defaloon waa Màkka ba tax mun naa leen falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawfin li mu war a liggéey ci dëkk bi nag te fas yéene fas ko yéene tàmbale ren yaakaar naa leerloon naa ko mooy ñetti ñeenti penc Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne mooy yi gën a sës ci dëkk bi ci la ko fas yéene tàmbalee waaye nag du bàyyi fenn ndax bu balaa àgg incha allah dana ko dana tàmbali 30 bi ak mboolem mbedd yu mag yi ak jëm ci mboole mbedd yi dëkk bi yu mag yépp kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soññ ñëpp nu am ci pësteef te xam ne kat sëriñ Tuubaa li mu yor mayewu ko sarewu ko saraxewu ko da ko jaay kon ku ko jëfal li ngay sàkku ci moom doo ko am te lu ci waay def nag boo tàbbee sa biir bàmmeel da xam ne sa yëf nga doon dénkaane te sëriñ Tuubaa kat waxoon na ne nit ki boppam la am ak i mbokkam ak alalam ak jëfam mu ne nit ki waxtu wu ba soxlaatul ñam mu soxlaatu jigéen ju rafet ñàkk na boppam ay mbokkam ko mu ne mbokkam yooyu rek buñ ko taxaw ba mu faatu bañ rob ko ba suul ko ba sarxal ko ñàkk na ay mbokkam alalam ko sës mu ne alalam joojee nag buñ ci génne ay borom da ci rus ñu doon ko ko ñàkk na alalam jëfam ko sës mu ne jëfam joojee nag bu dee lu baax du ci gis lu ko naqari waaye bu dee safaan ba nag wali asbillahi taala kon nag nañoo xam ne Sëriñ Tuubaa faggul na ay ñooñam loo xam ne kenn ku baax mosu ko faggul ay nitam ndax waxal na boppam ne ya'lam bi tax allazina ta'allaqu biha لولا تعلقهم بها لدخلوا النار بعد موتهم ولو مدة قبل دخولهم الجنة التي وعد المتقون نيانا ني اديو سي مان بوني اديو وتون سي مان دا نيو تابي ساورا غينا بوني فاتو دونتي اب دير نديكو ني تابي سي ادينا سوني بروم بيندي سي نيوم ديل وخاني فاز مرير نقاده الله الى تعلق بي او يحذاب الاله بيب طالب بوخن اديو غا سي مان كو بوني سوني بروم تخيل لا تا داغا ام ليغا بوغ del waxaat ne li kulli man bi yataallaqa naja min kadari dunya wa fi yawmin naja del waxaat ne képp bépp taalib bu aj ci man bu ne suñ borom musal na la ci ndax ne àdduna ak bis penc del waxaat ne taabusi taalluqin bi yasun bi jaahi man ilayhi wujjiha nusul coonab képp ko aj ci man ku ne suñ borom teqal na ko moom ba faaw te sëriñ bi nag mas naa dajale taalib yi ca gànnaar laaj sëriñ Aliou Sey ne ko Aliou dama bëgg nga limal ma ci yéen yi am Sénégal gum lim rek sëriñ bi ne ko du googa sëriñ bi ne ko xam ngeen lu ma ci jubloo mu ne ko déet mbàkke mu ne suñu borom damaa xamal ne balaa nag ni si déwén danañu fekk ci Sénégal ci ak ci yéen li ma jublu ci wax leen ko nag mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dig rek ni ngeen di gise lii ni ngeen di gise loola daana fii ma ko waxee nag ba ba ñuy àgg foofu kenn du fi faatu ci kàttanu yàlla bu baaxu sëriñ Tuubaa rek am na ci mel magum taalib moo xam dafa wér doon ba ñëpp jàppone day faatu waaye dafa wér ba sëriñ bi jóge gànnaar ba ñëw ci yéen mu door a faatu kon nag loolu mooy mbirum sëriñ Tuubaa loolu nag bu ngeen déggee sëriñ bi di ko wax mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis li su li yàlla suñu borom def ci moom te mu bëgg nit ñi jariñoo ko buñ ko xamul duñ ko mën a duñ ko buñ ko xamul duñ ko mën a sakku moo tax mu waxal boppam ne qultu wax xasdiya tahaddusun bi ma lii xaadahu wala yuraani niqama nee na itam mi nga xamal bokk julli yépp ne mi ngi sàmm ci yenn al al uxuwatu islaamiya ginu ginu boole te gën a rëy lépp mi ngi koy dëggal te fas ko yéenee suuxat na mu gën a ware ñaan li fi way juróom yi bàyyi ci kóllëre akuk déggu akuk ànd fas na ko yéene gën a dëgëral gën koo yaatal nee na itam mi ngi faso fasoo ànd ak bokk réew ñëpp nag ci albiru wala iqsaad ni ko borom bi mayee bala maa jeexal nag yeesal soññee gi ci mbirum liggéey bi sëriñ bi nee na kat sësul kenn dara waaye lu ci waay indi mu defal ko ci liggéey Serigne Touba ni ma ko waxee ci njëlbeen gi rek moom ci wàllu bopp nag barkeeloon na ci lóob milliard loo xam doo ko tàmbalee te fa su dee mu yom ci incha allah milliard boobu nag kon day fekk joxañ bi nga xam ne moom la fi kilifaam yi defoon muy compte bi nga xam ne ci ci tuuru Serigne Touba la nekk. nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké bi mu fi bàyyi ko mu ngi bàyyi woon na ko ci 600 million bi fi Serigne Saliou di jógee mu toll ci 16 milliards. mu mel ne na kon loolu tegtale ne tegtale ne bu ñëpp maase àndaloo ci ne ko kilifa yi daan defe lépp lu sëriñ Touba bëgg ci dëkk bi fukki weer ak jaar yu ne dana wóor ñëpp ne la Serigne bëggoon jéego bu ci kon nag ci jeexal ak ak jéggul nag ci kàddu yi ak guddaay bi ci kanamu kilifa yi Serigne bi nee na mi ngi ñaanal ñëpp jàmmi àdduna ak àllaaxira ni ko Serigne bi ñaanoon ne yaa maalikal mulki yaa man jal an xawlin irham jami al wara يا هادي ينردها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كن بسرين بسير مبكي موم سرين عبد القادر مبكي نوبينك تيلا مبولو ميبو تلل شعب محمد لمن بار مبكي خليف جنرال دي مريد نيان المبولو ميبو نيان تي درجة يكوتي دي خادم رسول شعب محمد بامبا شعب محمد لمن بار مبكي نيمو تامبلي لغي يلنكو يغلي كي ساقوم ci darajey ku tedd ki xaatimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba kon lii moo doon tàmbalib liggéeyub ñeenti penc yi di guy mbind daarul minan daarul xuddus ak pencum Cheikh Chouaïb bu Mbacké te Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacké xalif général de mourides doon teg xeer wi tey jii ci àllarba ji di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre tombe itam ak at ci bu mu ci xilaafa gi tombe itam ak at ci bi nga xamanteni bi dëdd nañu sang bu tedd ba Cheikh Salih Mbacké nuy ñaan sunu borom yokk ay leeram te taas nu ci barkeem wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu